nee moo feeñ ca moom rek nee feeñ na ci barab bii mu ko doon defee itam nee kon fee mu nekk itam ba tey ab xolam akum xelam ak i xalaatam moom la ñuy doxe fii ci mbaar mii lool la nee na nu mel rek na ngeen xam ne ci sëñ Moussa Fall la nee sañu nu fee def dara mbaa wax fi dara lu dul xalaati Serigne Moussa Fall nee ab toogaayam sëñ Cheikh na ne moom lañ fi toog nee na ay kàddoom yi mu nu wax it moom la ñuy jottali mbokki taalibe yi jullit yi nee na kon léegi li sëñ Fallilu loo wax léegi noo ngi sàkku ngërëm nun ñëpp nanu maasa sàkku ngërëm nee ngërëm nag caaxaan mayewu ko nee bu fekkente ni sunu boroom dina dimbali kenn ku sonnul te jë te jëfuloon kon mu dimbali yonent bi sallallahu alayhi waaye kenn ku ne dib julli dégg nga fi yonent jaar ca sunu boroom da noon lu ma bind yow yonent bi yaa ma ci gënal waaye nag da koo jëfloo de sonal ko Serigne Touba noonu. kon nuy itam. Cheikh Ibrahima Fall noonu. nee kon nun nanu roy ci ñett ñooñu. nee jamono jii nag. nee saytaane jóg na. di liggéeyloo doomi aadama yi. doomi aadama yu bare bari. ca xamuñu ko. te loolu nag lu mat settee la xam ko. nee ci ñoo xam ni. ñu ci bari dañoo jóg. Ya karni, la def moo di ak talibé moy l'islam ta soree na akuk talibé sore na ak l'islam ne kon nañuy wax ak nit ñi ni ko sëriñ bi waxé ne li ci dess tam mo wax ni kenn ko di ne na nga bëgg la nga bëggal sa bop na nga bëggal sa ne loolu li koy waral mooy doylu ak tege ci siraatal mustaqim nee nit bu iñaanee nee du yéene kenn dara nit bu doyluwul du yéene kenn dara ca nun ñii kenn ku ci génn ku ne gis ku bëgg a mel ni yow te bëgg laa mel ni moom nee kon nanu roy jàpp ko kon nag sant yàlla sant yàlla sant yàlla. bi ci gën dëggu bi ci gën a dëggu. mooy seet li la yàlla defal mooy seet li xañ ko sa moromam jaam. yàlla teg sa moromam jaam. lu yàlla teg sa moromam jaam. mënoon na koo teg. mënoon na la koo teg. te teggil na la ko. sant nee sant yooyu. daa bokk ci li nga xam ni. sunu borom du ko neenal mukk. nee bokkut ak cant gi nga xam ni. da ngay yor sa kurus. naa alhamdulilah. cant yi. daa gën a dëgg ne lii ma wax nag laay fedd li kon nanu góorgóorlu te xale yi ci aw yoon dang-dang ji bari na ca gone yi te féetewul fenn danga nga ciy gis koo xamante ni melokaan wa muy mel doo xam melokaanu lu mu wuute na akub taalibi wuute na ak lislaam ne kon nanu xam loolu yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci mbaar mi seen i baay ak seeni i mag nekkoon fi ànd ak Serigne Moussa ba liggéey bi ak si fii ngir téyewaat leen liggéey bi nee la ma waxoon daaw ni nañu bàyyi jaayante jaayante kenn du ko tere am murit yàgg na ci yoon wi. yàgg na ci yoon wi. waaye booy liggéey. waaye booy liggéey. ba nit ñëw. jël liggéey ba ci yow. jël liggéey ba ci yow. def fi lu mel nii. def fi lu mel nii. ñaari at. ñaari at. te yéen ngeen nekk fi. te yéen ngeen ne fi. lu war a mat fukki at wala ñaar fukki at. lu lu la ñaar fukki at. ma leen waxoon. la ma leen ab liggéey moo nangu. ab liggéey moo nangu. seenub liggéey na boo nangoo. seenub liggéey nag bi mu nangoo. xam ngeen ko. te xam ni. ña ko sosoon. ña ko sosoon. ànd koog sëñ Moussa. ànd koog sëñ Moussa. yéen ñii ngeen jël ko. ba keneen fekk leen ci. ku leen ci fekk ku ne. am ngeen liggéey ci. am ngeen liggéey ci. liggéey ci. am ngeen ci dërëm tànk. ñu bari nag. dañuy wax sax ni. ngistal kenn du ko fay kenn du ko fay waaye ngistal danañ ko fay yoolum ngistal moo soriwul kay jëf jëf li muy jëf. te la muy jëf. dëgguwul ci moom dëgguwul ci moom. keneen mën na koo gis. keneen mën na koo gis. ni kii kii kat. li muy def li muy def. ni ko ware ni mu ko waree la ma waree. mu roy ca bu mu roy ca. te kookaa jëf te kookaa koy loolu. kon yéen ñi nekk fii. kon yéen na ngeen téyewaat liggéey bi. woote leen leneen. waaye jaayante. kenn du ko tere. xam leen loolu. jërë ngeen jëf nee ñi ngi sant média yi ñi ngi sant itam ñi nga xamante ni ñoo fi nekkal gouvernement bi li ci des itam liggéey bii ñun ñi di bàyyi faal di jaamu yàlla sunu jaamu yàlla lenn la jaamu yàlla nag su fekkente ni ñëpp da koo naw di ca roy da ngay teewaat sag jaamu yàlla fonk sag jaamu yàlla waaye li ci des day ay caaxaan la sëriñ Mbàkke ngi nii ku dem Touba na ndogu yey doxe gis njaareem neneen xam ni xati sëti Cheikh Ibra yi li leen Cheikh Ibra bataleel ak seen mag yi ñoom ña nga ca fayo ku nekk ci leneen nag yaa ca ne ko am ab sëriñ nag da nga koy naw di ko roy nit nag soo ko dee topp royoo ko topp ko dëgguwul kon nanu roy sunu kilifa yi noo ngi ñaan nag sunu boroom boole na ci njëggalug weer wi. ak yërmandey weer wi. ak ndimbal yi. nangul nu jaamu yi. ak liggéey yi. te fulal nu ko. ci barke borom Tuubaa. wasalaam. nee mi ngi jégalu nag ci wax ji. gen jëf. ngir ngeen mën a toog suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall